toujours dans votre acte du jour dama que dem une vidéo si je ne pas Le problème aujourd'hui principal que nous avons, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui a en charge l'organisation des élections. De toute façon, le pays va faire ses élections mais je vous assure qu'en janvier, 2022, mm. il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection locale. Ah et je suis sûr et certain aussi que les élections législatives ne seront pas organisées aussi en 2022. Mais qui vraiment Je persiste et je Je vous assure qu'en janvier 2022, il sera techniquement impossible d'organiser les élections. Et en plus, ça fait une répercussion sur l'organisation même des élections législatives. Alors, man li ma waxee c'est clair ku ñeme yàlla ngi mais ada nga ku ñeme yàlla la ah, waaw mais mais dama hein ça euh, moom day taxaw ma nga tollu di kàcc ci ça me gêne ou quoi mais mais toi tu m'inquiètes vidéo bi ñoo ko gis ngeen TV kaddu yu mu bi mu kaddu la wax du Serigne Saliou Gueye jamono ji mo taxaw ne len Macky Sall limu bëgg def ak limu bëgg kër ci kër si muy accusation yi ma leen di wax suba ngone dañuy xey si plateau yi di fen suba ngone guddeeg ak bëcëk lañuy wax maîtriser wu ko c'est des éléments de Ousmane Sonko yi nga xamante ne moom moo leen dig ay poste ñi mu dig leen xaalis ñi mu leen di fay ñi mu leen di Wave ñi mu leen di Orange moné ñoñu ñu faté contrat bi ñu amon ak askan bi ñu jël contrat bi ñu am ak Ousmane Sonko uniquement pour seen intérêt personnel ki mo fi néwon élection municipale du am janvier 2022 je crois que l'élection municipale en janvier 2022 Je crois Ahmed municipale maire janvier 2022. Je Khadija l'élection municipale maire Golf Sud te ñu crois ci Ousmane Sonko kon parce que l'élection élection am élection élection législative aussi am en 2022 je crois que élection législative en 2022 ba septembre 2022 ñuy installé 14e législature ba tax ñom Guy Mari Sagna ñom Birame souley Diop Abbas Fall ñoo ñep nek tey ay député kon je crois que ki di Serigne Saliou Gueye lum leen waxati waru leen ko gëm té fenn la nekkee ci plateau yi suba ngoon ak bëcëk parce que c'est quelqu'un de haineux su ma nee fen la nekkee nak parce que vidéo bi moko ko ki taxaw ne la duma wax lu xamul li du ma sa am Sénégal li du ma sa am Sénégal te lolu amna donc limu mu wax safaanoog deug kon seigne Saliou Gueye est le plus grand menteur des chroniqueurs de la Sen TV kon jàppale que lepp luñu wax si seigne Saliou Gueye c'est quelque chose bo xamante il ne le maîtrise pas il est en train d'inventer il est en train de manipuler il est en train d'amplifier motax mané peuple sénégalais dafa am ay jamono yo xamante da doon taw te nee naa taw kenn du fobeere am na ay jamono yo xamante kenn jëlul won temps pour déglu li nga xamante askan bi ak ñenn ci chroniqueurs yi ñu ko doon utiliser ci plateau yi motax tax mënu leen def différence mënu leen def comparaison man nak dama leen doon déglu ak tek ak tay motax chaque fois ma doon def la différence et la comparaison bëgg xamal ni que ñiy taxaw ci plateau yi askan bi taxu leen fi tok Ousmane Sonko mo leen fi taxoon tok te tay yalla weer na leen diggu bëccëg ndar kam